Burenyila an satken arok mamar yuf Unyuri adnan daurani Muhammad wejkan burenyila an satken arok mamar yuf Unyuri adnan daurani Muhammad wejkan burenyila an satken arok mamar yuf booy ñëw réyaat naan daawraane fay maa ngi koy gis keroog ca gaal gi ca un million yu mu daje ak tas yaakaar tas yaakaaru tas <laughs> yóbbu ndam la ñaari gone yaa ngi daje waat tey ci pasi Yer Waago production ci njiital Leyti moo leen fi dajale muy drapeau monsieur le maire maire bu Passy waa Passy yëpp ñëw waa Sokone yëpp ñëw ñëpp ñëw seetaat si combat ndeysaan ndeysaan léegi nag c'est ça la grande finale Au départ, on avait 16 lutteurs. Et au final, on par deux lutteurs. loolee moom moo fi am. ndeysaan. arbitre baa ngi wax ñoom. wax ak Boy Faye. wax ak Doudou Sané. li li mu bañ. ku sifflé leen boole moo leen di tàqali wax ak ay jugeam coup d'envoi coup de sifflet de monsieur l'arbitre mu ngi noonu Boy Faye féete ñu càmmoñ Doudou Sané féete ñu ndijoor bu ngeen xoolee nag Doudou Sané moo xaw a gën a xees Boy Faye dafa xaw a ñuul Boy Faye jëli tànk ba Boy Faye Doudou Sané Boy Faye Doudou Sané Boy Faye Doudou Sané eh lan la arbitre wax Boy Faye Doudou Sané am na lu Doudou Sané di réclamer Doudou Sané am na lu muy réclamer Doudou Sané am na lu muy réclamer Doudou Sané am na lu nee booy Boy Faye dafa diw nañ ko xool nee na dafa diw nee na Boy Faye dafa xool na ko nee na yaa rien arbitre xool na ko nee na yaa rien arbitre sifflé waat na diggante Doudou Sané ak Boy Faye ndeysaan Mbayang Loum ci ginnaaw loolu ngeen di dégg muy neex fay biram penn waagaan di tagg ca ga muy neex loolu fii la am attention Doudou Sané jël na Boy Faye eh eh Doudou Sané war na ko ndombo Doudou Sané daan na Boy Faye Doudou Sané daan na Boy Faye Doudou Sané daan na Boy Faye eh, daan na Boy Faye Doudou Sané daan na Boy Faye jël na final ba Doudou Sané daan na ko jël na final ba makwe andan kana tima anjoba wotalo sekunde sar fapa bugeri njob nae makwe andan kana tima anjoba wotalo sekunde sar fapa bugeri njob nae Doudou Sané bëre woon nañ ci àll bi booy fay duudu fa na daan ko revanche lay jël tay dina leer wala déet booy fay mbot na wër na ko ndomba hee booy fay wër na saane ndomba booy fay wër ko ndomba duudu saane booy fay booy fay da doon jël si revanche revanche bi mbaa dina leer hee booy fay booy fay lu booy fay duudu saane booy fay war na ko ndomba trois appi Boy na ko ndomba Doudou def na trois appi ay Doudou Sané mbaa ci génn ee Kor Sira war na ko ndomba Doudou Sané dina ci génn Boy Faye war na ndomba muy teg tànk bi Boy Faye nu nii éey làmb ji Doudou Sané Boy Faye Doudou Sané mujj ci koom Boy Faye war na ko ndomba Boy lu mu nar Faye ma yaakaar mbër boo ko waree ndomba da koy déglu da ko bëgg a bloos li la bëgg Doudou Sané rëcc la bëgg bu yàggee avantage du Doudou Sané la bu yàggee avantage am la Boy Faye Doudou Sané waaw Boy Faye fu muy dugal loxo bi nii ay <laughs> bii làmb Boy Faye Doudou Sané mbaa Doudou Sané du rëcc daanu na Boy Faye na Doudou Sané Boy Faye na Doudou Sané nee ko ñibbil nee ko ñibbil nee na ko ñibbil rigna rige seku yakandigna fanya yokamen seku jota lokta enak kenyamai Rigna rige seku yakandigna afanya yokamel seku jota loktaena kenyamai Rigna rige seku yakandigna afanya yokamel seku jota loktaena kenyamai Olit no sira fapa jabe er adna betando sekunde sar gorke ander na kamile o litno sira vapa jaɓe ranna betando sekunde sar gorke a nder en kamile o litno sira vapa jaɓe ranna betando sekunde sar gorke a nder na kamile tando sekunde sar gorke a nder na kamile o litno sira vapa jaɓe ranna betando sekunde sar gorke a nder en kamile o litno sira vapa jaɓe ranna betando sekunde sar gorke a nder na kamile